xëy naa la. xeeboon nga def. dina ngaa miñal. <laughs> fekk bis bi macha allah ngay nekk premier njëkke tey loo ñu mën a wax ci sa chérie Soumboulou Bathily. Euh, kontaan si moom vraiment kontaan si moom si ni muy toppatoowee sama góor euh, bi mu duggee si kër gi laa gëj a yàq di indi <laughs> lijjanteetuma toppatoowutuma te jëkkëram tout le temps daf may wax franchement. sama jabar mi may may toppatoo bu baax te man loolu dafay sedd sama xol et puis soo ñëwee si kër gi su ma nu mu lay accueillir yow sa doo comprendre ànd naa fi ak sama doom yi ñu ne ma ñibbil fii la ñuy dëkk dama indi suñu valise tellement bu ma leen waxee kër Sumbulu la ñuy dem dañuy yàkkamti kontaan di daw dama leen si sax chantage boo deful li doo dem kër Sumbulu tu vois donc c'est quelqu'un de très très gentil bëgg jëkkëram taxawu ko jàppale ko donc franchement ñëpp ñi jege xaas ñëpp ñi ko bëgg amuñu fayam ñu koy remercier bu baax ñaanal ko doomam bi barkeel toog ba di ko teral vraiment kontaan nañ si moom. siiw di sëy euh, saa su nekk dañuy dégg ay wax ju ñaaw ñu ko jëmale ci seen dex bi teewul ba tey mi ngi gën a tenir di gën a jàpp sëyam tey lan nga koy wax pour mu gën a jàpp sëyam pour mu gën a rek euh, tey jëkkëram par rapport ak wax ju ñaaw yu nga xam ne mi ngi koy man si loolu laa ko gën a nawee sax parce que da ngay gis souvent nit yi lu nekk dinañ koy yëkkati tekk si deru jëkkëram peut-être la concurrence peut-être nit yoo xamante ne ay ennemi woon lañ bëgguñu ko mais dangay ngay gis comment il se met devant son mari nu muy si kanamam di ko défendre à tout le temps c'est-à-dire du nangu sax ku ko wax loo xamante ne euh, awul yoon man loolu dama ko si dama ko si fan en fait c'est une lionne day défendre jëkkëram défendre foyem elle a raison donc di ko gën a ñaax mu gën a mel noonu mu mel bañ a déglu kenn parce que wax bu ñaaw moom fu nekk la mun jógee xam nga doo xam nit ki lan mooy motivation donc lu muy def nii rek man dama koy rafetlu li ko wax na si gën a continuer bu mu nangoo déglu kenn bañ a xajal kenn si digganteem ak jëkkëram gën ko taxaw gën ko jege wan ko ne ñoom ñaar ñoo faa merci. naa la ku la xam-xam la ci wax ju rafet macha allah euh, saa su nekkee ñu lay dégg ngay lu Soumboulou Bathily tey mu am bés bu rëy bés bu neex daal di rek diggante li nga xamante ne mooy taawam tey lan nga ci. ah tey kontaan dellu santati yàlla rek julli sang sa ngay alayhi salaatu wasalaam santati wax dëgg yàlla ah ki nga xam ne tamit moo di Ablaye Diop Xaas moo ko yore ci ko fonk ko te ko ci place macha allah. ba li yàlla dogal tey comme li ma wax sànq ki nga xamante ne mooy biisu saa su nekk muy dégg ay wax ju ñaaw jëmale ci moom sëy bu du yàgg amaana tey mu yàgg ba mu am ci doom tey loolu lan nga ci sëy bu yàgg a bu du yàgg loolu nee naa ko ci loxo yàlla la nekk waxoon naa ko ci mariage bi waxaat naa ko di j li te macha allah sumbalu jo borom jom la nit boo nekkalee góor gu mel ni Ablaye Diop Khass dóoru la saagawu la toroxul la yàqul sa der warul di la jëw ah yàq bax dëgg bax dëgg yàlla tëmba jëwu la kooku di nga toog sëyal ko ba sëy ba juróom moom doom parce que Khass ci moom la fondement bi moo ko fondé moo tax tubaari kàlla nee naa ko euh, construction bi par force la faaw ñu construire sëy rek ba dee. ani monsieur classe générale nuy nañu maa ngi lay tey sa rakk di xewle Soumboulou Bathily ban yëg-yëg waaw mbégte rek ak kontante bu baax a baax di doole sant suñu borom waaw. tey lan nga koy ñaax jamono ju ñu toll nii parce que c'est pas évident tey yombul surtout mu sey moroomu artiste am boo xamante ni dafa siiw ah, muy ah, Diop Khass tey lan nga ci wax saa su nekk ñuy dégg ay wax ñu jëmale ko ci ñoom sëy bu du yàgg tey yàlla def ba ñu am ci doom te lan nga ci waaw moom maanaam loolu mënu koo yëngal wax dëgg yàlla parce que moom dèjà de cee yàgg ay wax affaire yooyu moom wax dëgg yàlla yàgg na ci yàlla tamit boole ko borom boo xam borom kër boo xamante ni dafa am tur kon loolu tey bu ñëwee doo lekk waat ci moom moom dina xam nan la koy gérer waaw tam di ko wax rek di ko ñaax rek di ko wax ne ko sëy yombul waaw sëy moom vraiment moog sëy yëpp a yem mi ngi noonu daal ñu ngi koy ñaanal. ñu gis complicité bi nga am ak Soumboulou mu nekk complicité bu neex tey loolu lan la lay lan la lay def tey bu xewlee bés bu mel nii. waaw moom sama seex la moom wax dëgg yàlla moom boo amee mbégte mooy man am naa mbégte moom na bég rek. waaw moom sama rakk la sama sama lépp la daal mënu maa wax sax si ma mënu ma sori ci moom ko ñaan